foofu sax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar monsieur Ndanick. bienvenue tamit waaw ah, dalal ak jàmm ci daara ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di dalal jàmm équipe bu Equivox TV yëpp. donc euh, di ziar équipe technique bi di ziar monsieur Ndanick di ziar yéen ñi nga xam ne yéen a toog nag seen i téléphone seen i tablette seen i ordinateur du ñu seetaan c'est pour c'est de Ghost Right. ñu gën a xam. Euh, turu Papa Saly mu indiwaat yokk ci aka de Ghostwriter te ñu bari bëgg nañu xam ndax mhm. Ghostwriter boobu mhm, mhm. liggéey na ci Papa c'est vrai wala titre la boo xamante ni Papa Saly da ko jël rek dappal ko boppam c'est vrai en fait à la base euh, Papa Saly de writer mooy turu fi donc euh, Papa Saly c'est mon nom c'est c'est mon nom sama initial le Paul Pissé de Sagne Joola bon temps <laughs> xam nga donc writing moom université la woon donc sama benn prof littérature africaine moom ko tuddee woon monsieur Ly donc moom ko waroon tooñu naa man de writer parce que j'ai toujours aimé écrire te en plus lettre moderne laa nekkoon donc je faisais le roman la poésie l'histoire la littérature la grammaire moderne la grammaire scolaire traditionnelle donc loolu laa jàng ba am ci licence donc lu euh, mooy sama domaine moo tax parfois si moo daan ma tooñ mën a ma daan na ma wax naa man ñëpp mën nañ bind mu xaw a dënk ñu baal leen mu des yow c'est venu après parce que c'est devenu un travail en plein temps donc euh, donc moo mooy mooy ar di ñëw arrondir fin de mois yi mooy arrondir fin donc daal donc loolu la daal donc après mu ñëw greffé wu ci tur bi donc euh, lool mooy Purpose de Ghostwriter. ok parce que Ghostwriter bu ñu ko déggee rek. mu doon euh, loo xamante ni dañ ko baaxoo di gis gaa yi nga xamante ni dañuy bind texte di ko jaay. wala dañuy bind texte di ko maye. ça c'est <laughs> ñaari day bind texte di jaay wala day bind texte. ñaari li may jaay ëpp <laughs> waaw mais mais xam nga parfois moom xam nga laa musique moom ay sensibiliser la. parfois nga toog bind mbir. gis nit xam ne lii diw moo ko moom nga woo ko dafa am def ko. parce que parfois su da am plaisir. defar œuvre jox ko nit mu def ko sax xol neex dal na ma ak benn woykat ka ma ko cité quoi man de j'ai pas trop l'habitude de citer laa liggéeyal mais dal na ma ak benn woykatu mbalax boo xam ne fa dëgg yàlla toogoon na benn jamono bu yàggaay dégguñu ko donc mu bind benn affaire jox ko ko mu def ko mu nekk affaire bu affaire bu toj sax nit ñi bëgg ko donc euh, dama daan toog damay toog ni sax mu koy fecc di ko béggee te sama œuvre la quoi donc et et j'adore ça parfois da am chance da ngay am da am un peu un peu un peu envie noonu mais aussi c'est un travail en plein temps donc on conceptualise des albums on écrit des albums on écrit des des chansons des singles aussi donc daal ñu ngi taxale daal ñu ngi taxale aussi ci jobu ghostwriting boobu ban son par exemple dañu ci mën a jox xamante ni moo la gën a marqué euh, bëri na de mais lu ma wax su ma xam nga ne keroog maa maa Pape au moins trois ou quatre ans mu may sonal ci loolu à chaque fois dana bon non nii nii nii mais man je suis quelqu'un boo xam ne je suis euh, vraiment un ghostwriter au vrai sens du terme maanaam tey ñi may liggéeyal euh, du ma toog ne mukk ne diw la à moins que ñoom ñu toog ne diw moo def parce que pour man amul mérite boobu noonu man de reconnaissance may am maa ngi koy am sama liggéey en tant que artiste en tant que rappeur donc ñeneen ñi may liggéey nag loolu c'est juste. mais aussi proposeur loolu day baax. waa Sénégal xam ko parce que. waaw mais dinañ ko dinañ xam a nga xamante ni ils ont déjà la voix. Mhm. mais amuñu inspiration pour bind. Euh, texte non mais te actuellement du sax man rek parce que temps yi les ghostwriters léegi bëri na parce que tey yaa tey Kourou. sànq rek ñuy waxtaan. Kourou il est là avant ci tijji yoon bi mooy max Crazy moo ko njëkk commencé di def fii yaa Gaston qui le fait bëri na ñu koy def. donc tey bëri na tey ay woy yoo xam si ne Gaston moo ko def wala Maxi moo ko def wala Pousa moo ko def da nga naan déedéet quoi donc en fait man j'ai toujours décidé d'être vraiment un ghostwriter mais nee naa leen nag dinaa am bisu wax donc xam naa damay bàyyi ba bés bu may bés bu may bëgg bés bu may bëgg lem kaaka yi daal bàyyi rab bi nekk suiveur après nañu ñu def bilan de tel it tel it tel it tel it ñoo ko def. des ci sens boobu. Mhm. parce que c' pas la portée de n' importe qui. c' vrai donc les artistes bari nañu au Sénégal. Mhm. mais ñu gis ne ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ci ghostwriter yuy remarqué. Mhm. Euh, bariwul. c' est vrai tey euh, loolu oh, laaj na ay études yu poussées. c' est vrai xaw a pointu nga xamante ni tey di nga am yenn bagages yi. pour mën ko pour mën ko mettre à la disposition des autres artistes. c' vrai déjà. am nañu entrant sixième moom doo gars am ñu ngi ko amee école Ousmane Mbengue bu Rufisque am BFM CM pionnier am bac lycée Abdoulaye Sadji dem université Cheikh Anta Diop nekk faculté de faculté des lettres donc euh, ñu def lettres modernes am une licence en 2007 après defaat une année de formation aussi à Supinfo moo tax ma leen lakkal à chaque fois donc jaar naa fa tamit parce que en dehors de de l' bind tamit. graffiti artiste laa woon c'est-à-dire ma njëkk xam Sénégal sax si graffiti lañ ma xamee donc moo tax dama def infographie tamit bi moo paree à l'université donc après je me suis consacré la musique depuis lors au-delà de de mhm. waaw xam nga loolu dèjà moom xam suñu borom parfois su la nattoo nga am yenn baatu xuur yu naqar yi comme sama genre gi <laughs> donc day kii te en plus toujours xam nga ça va un peu de pair. donc ma ciy remercier walla ay grand yu mel ni Koko Jean ay ñu mel ni Max QGS parce que ñoom ñoom ma encouragé franchement parce que mosuma woon sax mosuma ko woon farataal en fait mais à chaque fois que les gens écoutaient ma voix da nga def ay voix da def ay voix quoi donc man moom damaa sob yàlla moo def loolu quoi damay bëgg di laal ci lu bëri donc euh, en dehors de la musique aussi donc foog ngay laal ci ghostwriting bi laal ci voix off yi donc da ci baax daal bi ñu mujjee def ak waa originaire gars yi moom lañ mekk yi ne ma xamuñu woon loolu parce que c'est un documentaire sur le prophète donc euh, boobu c'est boobu ça a été expérience boo xam ne rek c'est différent te mu ngi sur YouTube nag gars yi dem xooli mooy last bi ñu mujjee def te c'est j'ai vraiment adoré parce que xam nga ñun moom yow maa def voix off yëpp te c'est un documentaire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à boobu yan yan voix euh, bëri naa def nañ MTN def nañ pour MTN MTN benn. MTN waaw everywhere you go. <laughs> dem nañ donc dem bëri daal mais su ma ligne moom day bëri parce que comme j'ai beaucoup d'amis yoo xam ne ils sont dans le monde de la pub. donc à chaque fois qu'ils ont des kii dañuy envoyé casting donc damay def parfois jot ma ñu poser leen quoi. Mhm. Euh, nga nekk premier artiste en Afrique de l'Ouest. pour participer. ci euh, benn compétition bu amoon États-Unis ñu tuddee One Beach euh, est-ce que mën nga ñëwaat ci compétition bi ni mu mm-hmm. demee ak euh, sélection bi ni mu demee du genre parce que bon ça fait une fierté de voir un artiste sénégalais njëkk xam nga xam nga man ngaaka la à la si mu woon sax ne mm-hmm. xaw ma sax ne yooyu am na Amadou Fall ba ak Kéji foog ma leen remercier parce que ñoom ñoo envoyé lien na ma gars am na lii concours bi day am parce que c'est jéem quoi peut-être nga génn ci quoi genre yooyu noonu donc euh, m'a envoyé ma déposé comme ñëpp donc j'ai déposé mes sons j'ai déposé sama biographie ay liens vidéo affaire yooyu je me rendais même pas compte de vraiment envergure yëpp après je me suis rendu compte que ndakate àdduna bi la on devait être léegi àdduna bi yëpp la ñu war a jël trente deux musiciens yu jógee ci vingt et un pays différents man daal ma xëy suba ñu ne ma ah yow de dafa mel ni jàll nga première partie bi man leen ah ah kon loolu neex na après ma laaj leen genre j'ai demandé un peu les infos noonu donc euh, ñu ne ma pour l'instant bokk nga si ñi ñu bàyyi xel en Afrique de l'Ouest man leen ok man leen ñaar la candidat yi gars ah, ni ñu ngi si ay deux mille et quelques candidats <laughs> ma ne ah après ma ne sama dañ may sonal dañ si perdre mon temps te lii nar ma jàll quoi après ñu oowaat ma ne ma léegi genre xam nga déjà il ñu tester sa niveau anglais donc ba pare après nga war a envoyé say live parce que ñoom fu ñu gis donc moo m'ont fait ñu def def ma entretien sama niveau anglais donc ma war def ak ñoom en live bi ñu paree loolu ma envoyé leen ay vidéo concert yeeg live ma toog daal benn fajar rek ñu envoyé ma ne ma daal lañ jël ko Afrique de l'Ouest man la man lañ maa war a dem ñu ne ma waaw ma ne ah loolu neex na <laughs> te boobu j'avais j'avais amoon album boobu amoon album j'avais qu'une mixtape bu génn mooy mixtape volume 1 mosuma woon voyage mosuma woon génn Sénégal à l'époque donc gars yi ma da nga war a dem oo sama gaa yi wax ne ko ñu may retaan naa ma non booy amul ma leen ah ma copier bi envoyé ko gars yi gars yi dama booy <laughs> quoi donc euh, noonu la après quand on y mu nekk vraiment une expérience bu bu doy waar c'était vraiment lu monde ci benn group léegi ngeen war a joobandoo présenter présenter spectacle war ko jouer ci huit états yu différents donc ça été vraiment joué nañ ba joué ci salon wu directeur du Cirque du Soleil parce que quand on est venu à Orlando dañ joué concert bi le mec était tellement amazed dafa daka neexoon tellement que daf ñu invité ci salon su ma gars yi ne manque de modestie moom damay retaan quoi parce que ceux qui me connaissent dañ may xasee le contraire ils me disent que je suis bi daa bëri trop si game boo xam ne humilité amu ci parce que tey jii comme su ma nee maa dàq rap Sénégal loolu la ñuy wax ego tripping loolu ci rap la bokk. tey jii yaaw jaal soo ko nee soo ko dugalee ci làmb ji mu ne maa dàq bëri ci làmb ji. je veux qu'on wax ma fan nga mhm. léegi léegi mën rab lan la. Ah, ah. mën bind. am flow am technique. musique bu ñu la mën a tegal nga mën tegu ci kawam. loolu yëpp mu ci man de dem fu nekk ci musique donc siw mën na am tur mën na am ak loolu yëpp de waaye. ku wér xam sa xam sa bopp waa Rapadio ñoo ko waxoon man xam naa li ma mën te gis ma ku ma yéem ci game bi waaw loolu moom xam naa moom leer na. ci défi quiconque. bon man sax man approuve it dama koy prouvé ay chaque jour dama dama dugg def amul refrain amul daal. Euh. mais mais moom léegi depuis ma defee émission ak Pape Sidi ba léegi. dootuma waxati ma ànd rab tënkee. boobu moom bari na sama sama sama sama communication sama rak ñoo ne ma léegi bu ko waxati mais samay artistes yi nag artistes ñoo ne ma bu ko waxati donc te voilà sunu borom man la nattu ma nekk. ma féete ma féete mag. booy man ko dal sama kaw nga xeer rek la de man xeer laa doj laa kaba <laughs> dégg nga ma de. non mais en fait c'est-à-dire xam nga parfois les gens dañuy jël mbir. yóbbu ko fu mu warul yegg. mais juste que euh, nous sommes dans la musique la plus compétitive au monde. mooy hip hop donc euh, à chaque fois ku ci nekk si ñun sa rêve mooy écraser ñëpp nga boox ko nga ñàkk wax tey jii rappeur bi soog a juddu tey pour moom dans sa tête ak dans son ambition moo mën ñëpp dafa war a duma ñëpp donc man tant que maa ngi ci hip hop bi xanaa ma bàyyi ko def leneen donc je reste stère mind boobu noonu moo tax may xëy chaque jour dem studio mooy tax may liggéey chaque jour parce que je me dis tey su ma toogee benn jour di sar am na beneen gaam bu nekk fële di liggéey du gën a taax du gën a taayal man may job donc chaque jour dama ciy nekk am état d'esprit boobu ne man maay terminator ku taxaw sama kanam dama lay fël dama lay fël <laughs> bés ma demee nag ba bàyyi ah. ñu des samay am naa demit waxuma la man de am na euh, contingent bi am na ñeneen ñi ñëw xam ne ñoo gën a soxal encore lépp lu ma war a def man amaana dañ maa boole ci mag ñi rek waaye du ma ci mag du ma mag du ma ma mag quoi donc tey bëri na tey ay artistes yoo xam ne ñu ngi si génération bees te ñoo maase. mais Popo sax est-ce que du yaa non en du loolu nit ñi ñoo lay teg foofu rek. xam nga tey jii mm-hmm. xam su ma ñëwoon tey man bokk naa ci artistes yi xam ne euh, si clash ma nit siiw saagu ma nit siiw def ma ay conneries siiw donc soo ñëwee am benn comportement bi rek nit ñi ñëw def ma grand te ba pare génération bi mu jugandool ñoo ma mag xaw ma ne <laughs> daa may dégg. voilà donc génération mu jugandoon ñoo ma mag donc xale laa woon du teel a bokk si ñoom ñoom donc euh, dem ba léegi donc moo tax su parfois su gars yi di wax ma non grand bi grand bi damay tas ak nit mu naa man grand bi te moom mag mais dama li ma jëlee kër gi loolu laa indi noonu laa mos a comporté wu doo ma dégg ci yenn ñaak fay day man doo dox sax si mbedd mu bëkkante man man na nu may dundee am na nu may liggéey la musique c'est un dama koy def damay wàcc ñëw gérer sama famille. vie euh, ren rek mosuma jël position rek. mais <laughs> eh, foog mu leer quoi foog mu leer. nga indi bëgg nañu nga expliquer ñu. pourquoi vous avez porté votre choix sur mm-hmm. ce candidat. ba tax nga dem joindre ko ci li nga xamante ni mooy euh, idéologie politique. en euh, li njëkk mooy mosuma engagé wu politiquement. te j'ai des grands frères j'ai des oncles j'ai des yoo xam ne yi politique bokk ci ay parti te mosuma intéressé parce que man euh, je me dis que man musique laay def quoi. donc je me je mon combat c'est dans la musique mais xam nga sooy soo nekk ci benn combat ba yàgg gis yow li ngay li ngay wax ci sa musique naa lii laa bëgg mu am Sénégal nga dem ba gis nit kuy incarner valeur yooyu donc da ngeen di tas benn. benn non mais déjà bi njëkk mooy génn si CFA ñaareel bi mooy affranchir parce que tey amul réew bu beneen réew développé ci àdduna bi ça n'existe pas amul réew bu développé ak làkk jàmbur ça n'existe pas. wala bëgg wéer sa économie ci keneen doo ci génn donc ñun suñu borom def nañu am ñu génn xam la ci biti xam leen donc am na loo xam su koy incarné tey ba gis nit koo xam ne day prôné valeur yooyu noonu le made in Galsen parce que man loolu laa gëm man soo may xool kaw seen li may incarné li may sol sama communication c'est le Sénégal je m'enferme pas quoi du affaire de damay tëju noo yeneen dëkk yi neexu ñu mag yooyu man damay génn damay tukki mais foog ñun ñu gëmante foog ñun ñu jàppale ñu tey jii tego Equivox moom ma ëppal njariñ que toog benn média français que wala toog benn peut-être dina ma yokk peut-être gën a dina ma yokk notoriété artistique ak yooyu mais je ma dis tey jàpp ci projet boo xam ne ay sénégal ñoo ko initié pour man loolu mooy suñu mission donc te en plus deuxièmement ma mosul am candidat wala politicien Sénégal bu mos a déplacé wu ñëw seet si ma ñëw toog ak l'a fait mu nekk preuve d'humilité quoi Ousmane Sonko ñëw na seet si ñëw ñu toog waxtaan man ma ne ko lan mooy sa vision concrètement parce que mu musuma politique sama life suma lijjanti mbirum politique. te sax duma politique quoi du ma dem di topp di tagg say maam wala di man du ma def yooyu. joolaa laa mais man <laughs> ma ko def quoi <laughs> est-ce uh-huh. man man soo ma convaincre man di ma am man. parce que même li may engagé même son public. du mos taxaw naa leen non voté leen diw wala voté leen diw. parce que dama j'ai trop de respect pour les gens tey jii am naa man ñoo xam ne dañu may bëggatee lañ far ñeneen ñi idi lañ far ñeneen ñi parce que ñëpp ay Sénégalais lañ ku nekk sa choix politique yow la intéressé mais man su ma convaincre man te man damaa naqaree convaincre damay saluer tey ah tey bi ñu toogee franchement j'ai vu un un homme posé un homme réfléchi un homme bu bëgg Sénégal et ça m'a convaincu donc bu ñëwee tënk ma dem ci meeting am mosuma dem meeting politique sama laaj ma dem yéeg fekk le paa ak maire ba ñu nice waaye ci dem ñi bi <laughs> that's it man dama digal boo may kii bi quoi Sénégal moo ñu ñor